lu président ki saali wax ñu jël ay mesures ci wàllu karange ci wàllu xaalis ak nu ñuy toppatoo ñi nga xamante ni ñoo di ay migrants yoo xamante ni dañuy jóge fii di dem tugal lu ko waral nag mooy dañu nemmeeku ni ñuy jël gaal bëri nañu loola journaliste yuy liggéey ci mbirum migration ak sécurité addu ci. ñu war a gën a mën a càmbar mooy li nga xamante ne mooy somage bi maanaam ñàkkum liggéey ndaw ñi ak inégalité sociale yi nga xamante ne mooy créé ñii di am ñii di ñàkk loolu di gën di bari. ak économie bi nga xamante ne yoruñu ko suñuy loxo Sénégal yorul économie am ci loxo. ndaw ñi jàppatuñ ci dara te jamono jii mën naa may xat-xat yoo xamante ni mooy tere dogal yi ñu jël ñu mën ko appliquer. wàll mbëkk mi dafa doon loo xamante ne c'est transversal dafa laal domaine yu bari kon du ay juróomi weer wala benn at moo koy defar loolu processus boo xamante ne dafa gudd ba paramètres yu ci war a dugg yépp euh, dafa bari complexe tellement. loolu yëpp nag am na liggéey ñuy dem. téye leen du yomb. jeune bu yeewu jàng ba am ay lijaasam war a liggéey amu ko biir réewam bu gisee yoon wi day jaakaar ne bii moo gën a gaaw pour gën a mën a tekki. donc loolu ay piste la yoo xamante ne gouvernement bi war na ci gëstu xool naka la ñuy def ba ndaw ñi seen bopp seen wàllu bopp gis seen bopp. si koomu réew mi. napp gi amay jafe-jafe koom-koom bi tamit ñu wax ci rek atum 2023 bi ba mu tàmbalee ba léegi 23000 migrants ñu ci ëpp nekk ay sénégalais ñoom ñoo jóge fii dem fi nga xamante ni moo di Espagne.